man Awa Gueye jaaxal na ma ko am. Awa Gueye mi ngi da koy côté rek. man du julli. waroo am dara. eh. ay sama paan na dem soirée. xoolal yii rek. lii yëpp moo ko moomoon. ndëm ko woon. waaye gis nga de. waaye wifi bi lay war wifi Awa gi moom day côté wifi bi rek. Wah, urna, bătas. Hmm? Ya. Eh, ya, ya, mana ada masă, mana mas itu nya. Hmm? Ada mas. Ah, jual urna deh. Ini bahul deh. O să dă ramă. Nu să-l ada Ei, joc mă depans, dă mai de masă la aua. Eu ia mă fi tahă eu, joc mă să yo. depans. Ué, eu, eu, eu, nu eu. ci wéru koor bi bu sell bi ngay yuuxu lan ngay yuuxu ma bu malala la awma awma awma tama see marché bu dul lool xola ci li laay tëpp tey tey ci ndu tàkk. Ah ma laaj paa bi. ah bon waaw. ba doo lijjanti dara. man maa koy lijjanti. Ah. man maa ne doo lijjanti dara. lijjanti wu ma dara ti ti ma merde. yow am nga looy expliquer fii si eh, ah. la damaa sonn ci sa tur eh, laaj sa papa eh, dépense. ah bon damaa ñëw di ka laaj dépense mu ne ma aw ma mu ne ma en temps mu nan man awma may ñew ci yow nga di jox dépense hmm. lool mom mënuma ko ama joxal ki dépense bi dem góor gi yow ma dépense lool la ko wax demal gis gorgi, gi mu ñew fi dima énervé amanda ndaw joxal ki dépense bi mu dem marché góor gi yor ko amanda fayal cigarette góor gi fayuma cigarette amanda fotse ham fat rek u nekk si kër gi u nekk si koñ nga bàyyi la noonu rek aw alakan amandoo. amandoo bàyyi ka da ngaa war dama ne góor gi doo ma def. naa def kan laa la wax naan doo ma def naa doo ma def dara doo ma def dara man maay. tudd sama waaw ànd ma. waaye yow dama ne doo ma def dara. Eh, xam la ma la wax tëjal sa jëmmañ ba ma la wax u di ma tontu am waay dootuma la may dara nag dootuma la may dara si kër gi ah. góor gi moytu ma. kan la xam boo ma moytulee dama lay suuj de. aw ka laal suuj am yow laay suuj suujal am ma laal suuj aw ma laal suuj man sa baay am ndaw awa ñàkk jom aw doo rus waaye ngi noonu ma laal suuj man sa baay ma laal suuj ma ndawee ma laal suuj aw ma baan adduna ngi noonu aw yebaa kaay na ma la jox barke Rasulullah ceeb bi doo si lekk doo dugg si kër gi doo si lekk doo si naan loolu ak guñ am fu teetee si jëmañ du nee naa nag dinaa ma soj soj ma dégg nga. ma ne. foo lekk soj ma rek foo lekk ma lekk foo naane ma naane. yow da ngay wax yow. dañuy wax ngay wax. léegi da ngay jël ay matuwaay. baax na.